jox bopp waaye ci lutte li nga xam ni moom mooy lamb sport réew mi xale bi nga xam ni moo jugee ci yëmbal moom la ñu wax fi ñu toll nii mais phénomène bi nga xam ni moo jugee yëmbal ñu bàyyi ko mu présenté wu ak téléspectateurs yi ñu waxtaan ak moom wax ñu moom mooy kan Diop de euh, bu yëmbal maa ngi lay ziar. abaa ñu ngi lay fay di sant yàlla di julli Seydina Mohamed sang-sang yi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax di nuyu assistance bi ñëpp xam nga di nuyu Moussa Faye sama frère moom yàlla dafa def sama waay la sama xarit la sama nit la di nuyuwaale tamit soxnaam bu baax yow di la nuyuwaale bu baax tamit l'enfant série de banlieue mhm. doomu dëkk bi nga xam nga di nuyu tamit ñi ma àndal ku ci mel ni Mbaye Niass buur laay sama xarit maa ngi koy nuyu au tamit di nuyu yu moo fi siif léegi moo siif léegi moo siif léegi yaa ngi siif lu sa yoon nekkul gis nga di nuyu iso iso coach odo moo mu indi si odom tamit xam nga mhm. ñu ngi leen di nuyu quoi képp ku ànd ak Diop 2 ñëw fii rek Diop 2 nuyu na la sant na la gërëm na la di nuy tamit waa yëmbal gi ma jóge benn barak Kër Massar Malika xam nga ñàkk ñàkk Rob Tivaouane Pël Thiaroy Samsam Diamaguène bu ma limee damay juum daal fu soppay borom soow mi nekk diaspora bi tout maa lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñu nekk ci la loolu hôpital yi ñu leen ñaanal suñu borom yëkkati leen ñi nga xamante ne ñoom la caabi fee di ginnaaw di ñaan suñu borom indiwaat leen fi bañ bañ faa dellu si barke Seydina Muhammad mais kuy Diop mooy Diop de ah Diop de benn jeune la rek xam nga mun naa ni Kër Massar laa juddoo yaroo Thiaroy màggee yëmbal mhm. xam nga tamit def naa jàng naa école jàng naa métier tamit. xam nga mais yàlla dafa def daal sama lu ëpp sama carrière yëmbal laa ko defee yëmbal nekk sama base yëmbal nekk sama dëkkuwaay yëmbal nekk sama wéeruwaay. waaw mhm. ah, parce que tey jii bu ma demee ba toog fii à cause de waa yëmbal. Mhm. parce que tey jii benn lam ci loxo donc du yëngu du yëngu du ñoom mhm. ñoo ma dooleel ñoo ma yokk fit ñoo ma yokk ñoo ma yokk jom daal ba ma ñëw fit tey jii yàlla suñu borom def job de bi law ba faaw. lépp yëmbal la. mais tey euh, kañ nga commencé kañ nga xalaat ni yow doo da war a nekk mbër da ko doon da nga ko doon fowee wala seen euh, sa papa sa maam dafa am ku ci nekkoon mbër euh, noo def ba doon mbër. waaw man sama maam mbër la woon ma yoro Fall di nuyu waale waa Louga ñëpp ñàmbur ñàmbur nekk rek Diop de mu lay nuyu. Mhm. man mbër la woon kon ngemb li mu naan dama ko fekk ci kër gi. Mhm. waaw te en tamit bëri dama ko doon fowee dama daan jàng école sax su ma génnee récréation gars yi dañuy dem di ndekki di ñuy nekk fii nekk foofu di bëri rek. Mhm. ba nga xam ni suñ monsieur bi ma daan jàngal dafa woo sama yaay ba sama yaay ñëw mënu ba kii bu yow ngeen jàppal ko ci làmb ndax euh, xelam nekkul ci jàng daal et puis ma jugee fa nag di jàng métier sama yaay déglu mooy jàng métier faux plafond jàngu ay 5 ans yàlla def nag ma commencé mën. ay ah, faux nga def ko métier. waaw moo tax kay làmb yu bari may gis <laughs> da ngay sigir rek. da ngay rek ma ni kii lu mu waaw ah loolu demee nag ñu nekk si di góorgóorlu boole ko ak tamit ñuy dem di entraînement di bëri ay mbafat abaa mbafat ma def 12 combats 12 victoire jóge di nuyuwaal suñ coach Mor Fall sama baax coach Dieng si naa coach Saloum maa ngi ko nuyu au passage coach parce que tey lu Jóob doo mel rek wala doole ju Jóob indi si at si làmb rek ñoom ñoo ko def ci moom xam nga ma ñëw yàlla suñu borom def ma am 12 combats mbafat 12 victoire mhm. jóge fa suñ coach Mor koo xam sama yaay da sama yaay daf maa yëkkati teg ma ci loxoom mu ne mu ne ma pourquoi pas mënoo bëri arène ma ne ko waaw man instant bii nii pare naa pour bëri arène mu ne ma dafa doon licence ma ne ko waaw mu dafa doon licence mooy juba ko daanu di góorgóorlu sorti bu ma am yàlla suñu borom suturaal ma ba ni may amee onze combats onze victoires tamit xam nga di nuyuwaale sama frère Baye Sall borom États-Unis mhm. zungale l'international borom Espagne maa ngi koy nuyuwaale bu baax a baax a baax nañ commencé ci euh, premier bi kan moo ci topp kan moo ci toppaat balaa ñu ñëw ci sa supporter yi balaa ñuy ñëw ci sa base balaa ñu ñëw ci coow li nga xam ni fi ñu toll ni moo am ci réew mi euh, fan nga commencé ak kan waaw ah, sama premier combat Cheikh Bouwala laa daan bu igri sama deuxième combat ma daan building bu Tay Singa sama troisième combat ma daan Sakes bu Kolobaan sama quatrième combat ma daan Sores bu Géejawaay sama cinquième combat ma daan Armée 2 sixième combat ma daan Cité bu Anti septième combat Far bu Jar huitième combat ma daan Clémenceau neuvième combat neuvième combat ma daan Jeex Jàmm dixième ma daan Caatu Ngéwél onzième ma daan Cité bu Ngor. yàgg Cité bu Ngor. Euh, ci signature bi je pense que li nga mës a am ci làmb yëpp bi moo ci ëpp coow. Cité bu Ngor lan moo waraloon mu am da ngeen amoon ay antécédents ay problèmes wala lan la woon cool dafa bari woon trop trop trop. non Cité bu Ngor nekk mbër boo xamante ni dafa am ginnaaw. xam nga Ngor yónni ko yàkkamti ko Diop doo tamit yëmbal yónni ko yàkkamti ko ak li ko wër département bu Kër Massar bi yëpp xam nga nekk ci ginnaawam mu nekkoon ci ay dynamique de victoire moom Siteu bu Ngor moom tamit mën na ci ay dynamique de victoire foo tourné amateurs yi promoteurs yi nit lamb yëpp Diop doo Siteu bu Ngor mooy làmb ji foo tourné Diop doo Siteu bu Ngor mooy làmb xam nga Euh, yàlla def mu nekk ci loxoy Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye démarché ko yàlla def mu taxaw. Fallou Ndiaye moom sax ci kanam dinañ ci waxtaan ndax gis naa ko mu def benn sortie euh, boo xam ni am na yenn yu mu ci wax xam naa ni ci kanam dinaa la ci laaj nga tontu ci mais fi nga nekkoon rek moo ci Siteu bu Ngor. xam nga def yàlla def taxawal ko xam nga làmb ji bëri coow trop foo romb Diop 2 Siteu bu Ngor foo moom la ñuy waxtaanee xam mu nekk combat bu ma fonkoon combat boo waa Yëmbal dañ ko soxla woon de trop ñëpp samay am di jàmm samay nit ñëpp soxla ko ëmbal kay paayeeg meen ñëpp génn nañ waaw mu nekk tamit làmb ñëpp turoo soow mi mu nekk làmb joo xam ne man dama ko jëloon def ko sama ni làmb ji niveau bi jële yóbbu bi mu nekk ci entraînement yi bu baax baax baax baax moo tax bi ma ñëwee le 19 yàlla suñu borom suturaal ma ma confirmé xool leneen ne sama mais signature bi dafa mel dafa am lu mu wax loo xam ni métti na la yow mais métti na waaye yëmbal yëpp yëpp yëpp mooy euh, munoo drainer ful munoo indi mbooloo ah seen ruq mu euh, bu sew boobu ngeen nekk seen ruq moom suñu ruq bi moom fan la wooy ruq Ah, yëmbal yëmbal da doon woowee ruq mais ruq bi ne ruq bi mu ñëwee le 19. mais jaaxle na. xam naa ne isaan ruq bi mujj naa nekk bayal. <laughs> ruq bi daa mujjee nekk bayal. mais euh, nga dem ci lamb joo xam ni am na pression quand mais ñëpp dañ doon wax yaa mën yaa mën bi ngay dugg ci lamb ji da ngay indaale sa pression boobu noonu. man yàlla dafa dogal damaa nekk mbër boo xamante toujours en l'aise laay nekk man su ma nekkee contact ak su ma nekkee làmb ja laa yemale parce que ñi maa ngi dégg xam nga man nag da sama mbër du ma fi toog di la wax loo xam du la neex lu la neex rek laa lay wax ba keroog nga fi jóge mais nit ñi ñu ngi naan ñi ngay bëreel ñëpp yaay mën yow bëree góob koo xam ni dinañ ñi tey booy jóob doo dina am combat loolu bu ñu waxee xam nit moom imaam

te damay nekk loo xam dama ko ñaan suñu borom mu xeeb dolli mais waa làmb ñëpp dañuy dund làmb xam nañu ñi ma bëral ñëpp wallahi tey jii bu ñu doon laaj tey fan nga jëm que booy ñu ngi bi ay poxola poxola alburi booy yee ngi wax ay tur yu leen neex léegi yow tey euh, kan nga xalaat ni ci ñan ñaari mbër sa génération nga xalaat ni tey euh, boo doon dem ci ñoom nga jëm waaw man instant bii nii xam nga yëmbal yëmbal dañoo ref la woon lu bëri ci làmb te man instant bii nii sama bët bi waxuma la ay booy de si roi des arènes Modou xarañ loo fa laa ko teg Hmm. man foofu laa ko teg ndax yëmbal dafa am niveau bu ma ko bëgg a jëlee am niveau bu ma ko bëgg a yóbbu mais loolu du ci ay wax adversaire yi nag du ma ci lim kenn am naa staff xam nga am naa ménageur am naa am naa am naa ay kilifa yoo xamante ni Diop képp ku mu war a bëre rek ñoom buñ ci wax ci incha allahu rabi Diop 2 dina hmm. lan mooy sa problème yaag Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye sama papa la. Fallou Ndiaye sama papa la hmm. sama xarit la aw ma lenn loo xamante ni jote naa ak moom. xam nga Fallou Mm-hmm. ma ak moom ñoo jógee ci deux cent mille ba ci ay millions. Mm-hmm. kon mu ko gis mu def léegi benn live def benn vidéo attaqué ne mbër may waxal xam na boppam. Mm-hmm. tey bu dee dafa yegg foo xam nit ñi dañ naan ko bàyyi Fallou Ndiaye dem ci leneen man teewuma benn mbër mais xaw ma lan ak lan ak lan wax dafa mel ni yaa moom loolu. non man jàpp mu ne maa moom loolu ndax mag Fallou réeréwuñu dara. xam nga fan yii passé dama déggoon ay détails ay job da dafa dem kër Aziz Ndiaye xam affaire yooyu noonu. da nga seet Aziz. waaw mais Aziz Ndiaye man la. sama mag la man am naa droit dem kër Ndiaye si ce ngi dégg. génn benn coow de. foofu laa ko waaw mais xaaral ma leeral foofu. Aba man am naa droit dem kër dem naa parce que loolu dara man am naa droit seede ku ma mhm. mais dama dégg ay détails yoo xamante ne pour man polémique bi jarul muy bëri. man maa ngi day mbiri digganteeg yàlla bi nga demee kër Aziz lan ngeen waxtaanee. man dëgg rek moo neex yàlla dëgg rek moo tax yàlla jëluma avance Aziz Aziz mu daanaka tëggul làmb Baye mooy tëgg. man jëluma avance su Baye jëluma avance su keneen ak keneen est-ce ngi dégg. dama jógee ci làmb même pas une semaine. coow lu bëri xam nit moom làmb moom ci coow lay commencé. Mm-hmm. ci coow lay jeexee man mm-hmm. mis naa coowu làmb. Mm-hmm. mais détails damay dégg ay détails yoo xamante ni dara amu ci démb rek maa ngi seetlu benn émission boo xamante dañ doon wax Fallou Ndiaye daa ak Diop 2 si benn kër guy jar 20 millions. mu ni Fallou Ndiaye sama man. sama ñàkk laa yaakaar pour jëndal sama yaay kër du ay ñàkku jàmbur wala du ay abu wala du ay leb yoon bu ma nekk man xam naa li ma mën a may li ma mën a a xañ xam naa ko te ci laay nekk fukki si bu baax a gën a góorgóorlu xam naa ko voilà gën a góorgóorlu <laughs> ndax tey ji man mun naa ni samay at bëriwul te li ma def si làmb am naa samay grand yoo xam ne ñu ma ëpp doole fuuf hmm. dàq ma foo mi fuuf te yàlla suñu borom jox leen ko kon dama koy sant yàlla du ci man loolu yàlla la xam nga di nuyu yàlla tamit sama mag Alioune Seye maa ngi koy ñaanal ndam si combat bi mu jëm. Mhm. di nuyuwaale tamit euh, ñoom Zé sama grand frère mbër yi mbër yi nga xamante ni heure bu jóg jugee dañuy jug mbër yëmbal yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex. ñi si am ndam nag ñu ngi leen di félicité ñi nga xam dañoo bëri ñàkk ñu ngi leen wax di courage làmm noon la waa Diop dañ lay féliciter ah bu baax a baax. suñu mbër la di kontaan si di wax waa yëmbal di wax mbër la. vraiment waaw bu tax gars yi toj fi benn mbaar yi. suñu kii la suñu. fierté bëgg mu leer rek ñun banlieue yëpp. xool li ñu koy laaj. ñu gis macha allah 4 ans 11 combats. 3 ans 3 ans 3 ans 11 combats 11 victoires. Hmm. kon bu la yàlla lafalee cat rek musal la ci làmmiñ ñun xam nañ yoon bi nga jëm. Hmm. incha allah rabi roi des arènes bi. Euh, xam nañ ni war na ñëw a bëgg laaj léegi ñu gis fan yi làmb yëngul lool ñu gis Aziz Ndiaye génn ne ki daan Balla Gaye Tapha Tine moom lay jox empereur ah ñu ne Modou Lo mooy roi des arènes Siteu fufalee ci làng gi ne Aziz Ndiaye xam naa liy dagg sa xol dama laa bëreelul lool mooy li la metti Diop coow yooyu nan nga ko dundee ci biir làmb ji yow fan nga bëgg a féete tey jii nii empereur nga bëgg nekk wala roi des arènes nga bëgg nekk. mais làmb ji man li nga xamante ni fi laa ko fekk ci làmb. Mm-hmm. muy roi des arènes te benn roi des arènes moo fa am muy Modou ci. non man d' accord ma parce que roi des arènes ak empereur su ma juumul bokkul. non non pas empereur moom moo féete ak ñëpp kaw. non mais bu dee dëgg moo neex yàlla làmb ji benn roi la am muy Modou Lo empereur nag pour man su ma ko jàppee woon beneen trophée comme genre trophée wala dara mun naa jàpp ni Aziz am na droit teg trophée tuddee ko nu mu ko neexee. mais man daal dëgg rek moo tax yàlla Modou Lo mooy roi des arènes. mais li président CNG bi wax tamit nee na euh, mooy euh, kiiwu roi des arènes bi euh, benn communication loonu pour def benn coup de marketing naan nuñ jaayee làmb ji mais CNG binduñu ko fenn donc ku ci nekk am nga droit nga génn wax damay teg bii trophée tey am na koo xam ne sax bu doon promoteur la mën naa génne teg naa trophée Ligue des champions ku daan yaay jël champion des xaw ma champions league bi loolu ku neex mën nga génn wax lu la neex mais xam nga ñun dañoo miin làmb am na roi des arènes loolu lañ miin ñun ñu nekk pour man nag Modou Lo ko ko daan pour l'instant yaay nekk roi des arènes de dëgg rek moo neex quoi mais xamu ñun man man daal roi des arènes daal min naa ko ci làmb mm-hmm. te comme test boobu nga wax bu fekkee ay kayit lañ topp mm-hmm. kon mun nañu làmb ji amul roi des arènes mm-hmm. ndax bu fekkee président Birasène lu mu wax nii roi des arènes nekkul test ci boo xamante dañ ko dafa nekk CNG kon mun nañu roi des arènes amul mais ñoom ñoo reconnaître woon Manga 2 comme test loolu mais ndax roi des arènes ku ko daan yaay nekk roi des arènes ndax su ma jumul Eumeu Sène moo fi nekkoon roi des arènes moo loo ñëw jël ko ci moom kon moo loo mooy roi des arènes lamb ji pour l'instant waaw loolu laa bëgg a xam ndax juboo nga ak Aziz Ndiaye merci beaucoup ah Omar Omar Kaay Omar am na lu muy laaj ñëwal nii Kaay dafa def lu musul am kat ci lamb nee naa leen heure bu ngeen ñëw ñëw leen fii ngeen laaj dafa def lu musul am ci lamb kat si ñetti at trois ans nga am ci onze a onze victoires te lamb ba léegi amul benn mbër bu mag ba amagum quinze combats quinze victoires. Yaxya Diop Yékini non non quinze ans la to quinze ans de ren dëgg la. mais 15 combats 15 victoires sax da doon jàpp ay benn mbër di ko daan ñaaroon ah. mm, waaw parce que moom daanagul kenn. ñaari daanagul kenn ñaari yoon da leen lépp nag fuuf. Mm-hmm. day ñëw saal yëkkati lu kenn du yëkkati dama koy fekkee dañuy ànd saal. Mm-hmm. day saal day ñëw ci day dem saal ak du dem saal loolu sa yoon nekku ci nee na day dem saal man yëkkatiwuma waaw ñii yëkkati lay àndal kii day wax waaw mais ñii yëkkati lay àndal day ñoo saal ba yëkkati lu lu bëri mhm. bu demee jàppaay adversaire am daan leen moo leen ëpp doole mhm. mais dama bëgg laaj ko mhm. ndax moom pare na wala ndax defi bi mi ngi ciy bàyyi xel quinze combats quinze victoire waaw ah, foofu lañ ko bëgg a yóbbu ah, amagul amagul amagul kii def kii dara ne ful boobu ci stade amagul ko ko cam la dëggeet bi muy am quatorzième victoire la lam defet ma Sène daan ko. yow yi est yaa ngi bàyyi loolu xel. waaw loolu maa ngi koy bàyyi xel. lu masul am ci làmb. man 15 combats 15 victoires. mais lu mës am ci làmb chaque jour man muy innovation ak lépp moom laay doxe moom laay waxee te incha allah maa ngi ñaan yàlla suñu borom bi dara tawul am na ko mun na ko yàlla na wax suñu borom defal te tànk yi ma nekk gëm naa ne bu soobee yàlla yonent bi. dina ko def bu neexee yàlla suñu borom. damaa dégg benn mel ne soow bi ñoom xamuñu fu muy jógee. soow mi dañuy yeewu jouru làmb rek gis fa soow bi. te chaque jour soow bi benn butéel la woon tey butéel 10 litres la ñu indi. non comme ni ko comme noo ko sama mère bi waxee rek noo la demee de <laughs> sama tante la maa ngi ko nuyu Opaas nuyu sama gaale ñëpp. di ñaanal sama yaay jàmm di ko ñaanal tawféex di nuy sama tante yi ñoom Kiné Woli et tout xam nga kër gi ñëpp. di nuyu Cheikh Mbacke moom ma sañsal ci daal yi Cheikh Mbacke Ndiol maa ngi koy nuyu baax baax sama mhm. mag kaw mun naa ne kaw ba suuf zal international bi tamit xam nga tey Aba doomu yëmbale dañoo sot mhm. tey fu nekk lañ doon jóge di ma solal yàlla xam na ko Papilo Sow maa ngi koy nuyu au tamit daf ma jox ensemble bu rafet macha allah euh, Badara laay tamit borom jumaay laan tamit daf ma indil ensemble bu rafet xam nga ni ma mbër sol ko ñooñu ñëpp tamit ay doomu dëkk bi lañ tey dompati sot la bokk mhm. damay gis ni lu ma xewle rek su ma ssc rek bi laay walaay ku nekk woo ma mbër kaa jël lii sañse kaa jël lii sañse maa ngi leen nuyu tamit au passage di leen kontaane bu baax a baax baax di leen wax ni soow mi nag ci làmb dina bokk te day làmb mais soow mi tey fan la commencé fan la soow mi commencé soow mi di may nekk booy di bëree di bëre mbapat la tàmbali mu nekk sama solo gaa ma sootee def samay affaire xam nga di mag moom man ni ma bëree arène nii noonu laa doon bëree mbapat hmm? barke alxuraan coow lii coow léegi lépp man dama daan bëri mbabat nekk booy di togg ay ñaari mbona te booy laa. mais ni nga def stade bi nii dimanche bi passé yaa ngi ci bàyyi xel. non maa ngi ci bàyyi xel maa ngi ci bàyyi xel bu baax loolu yëpp du ko sant yàlla rek di wax ni nit moom amoo dul say soppe amoo dul ñi la bëgg waaw nit moom ñi la bëgg jar naa daw ba dee ngir ñi la bañ tamit di leen ñaanal jàmm fépp fu supporter borom soow bi nekk rek job 2 aw ma sa fay maa ngi lay ñaanal suñu borom dafa la tawféex nga koy saa su ne comme ni nga ñëwee nii yàlla suñu borom mooy ñu koy fekkee di ko fekkee di ko fekkee la suñu borom di defal ay ndam yu bëree bëree bëree bëree bëri loolu dong laay ñaan ñu ngi ñëwaat ñu yeggali dinañ la bàyyi nga sant ñi nga bëgg a sant ñëpp waaye dinañ ñëwaat ci euh, suñu invité yi nga xam ne ñoom itamit ñu ngi fii toog am nga yow am nga soxna wala am nga affaire wala yooyu nekkagul sa yitte non am na ku ma yàlla boolal nag pour divers am na ku ma yàlla boolal te maa ñaan yàlla suñu non des fois rek. bu làmb amee nan nga koy gérer. waaye yëmbal dañ laa dañ dañoo def seen yaakaar ci yow de. non waaye yëmbal laa dëkk. damay déglu rek ma ne damay déglu fii mu wax la ay am na ku ma yàlla booleel dañuy gisante ak yooyu bu làmb amee nooy gérer loolu. non man moom wax dëgg fa yàlla bu làmb amee damay toog sama koy nekk sama bopp nekk si li ma war a nekk waaw temps boobu sax xel xam nga xel nit moom xel sa xel rek moo lay sonal. mais sama xel sax du nekk ci affaire yooyu parce que man nu may xool nu ma fa gisee am doole lekk bu suur entraînement dem bëre def li ma waa yëmbal sant loolu dong xale yi dañu bëgg forme te boo nekkee ci forme xam nga xale yi duñu bàyyi mu seet ba pare yow ñaawoo ba pare sama réalisateur bi nee na ma tu communiques bien ndax da am ku lay jox ay cours de communication wala non pas loolu sax xam nga bu dul dara ñun bu nekkee ay xale sax xel yor xelu xale am nañ suñu grand yu nekk suñu wet ku ci mel ni Mbaye Niass ku su Mor Fall et dañuy teg si code waxeel nii defee ni suñu turandoo booy tamit di ko nuyu au passage tamit borom yëmbal am na solo am na solo maa ngi ñëwaat ci yow léegi-léegi dafa am benn élément boo xam dañ ko war a dem ànd xool mais bu weex ceeb bu weex am suul ak nga ma de <laughs> copier na ma ah yow mbër ay yu nii nag ah, yooyu a bëgg ceeb même bu làmb amee nii jour bi ngay dem làmb ji bu ñu tegeel ceebu jën bëgg lii waaye lii lii tax nga nekk sama gaan waaw loolu moom dëgg la moom. waaw mais euh, moom ni nga bëggee ceeb bi euh, su ko Binette di togg noonu la koy toggee wala am na feneen foo gën a préféré ceeb bu weex que ci kër Binette. ah ceeb bu weex moom dama koy lekkee fu ne. waaw <laughs> wax ma loolu de ma ni ceebu weex bu Binette mooy sa préférence wala am na feneen foo xam ni yow sentir nga ni seen ceeb moo gën a neex ceeb Binette. Euh, ma yombal ko <laughs> Barsila loo wax nga ni. bàyyi ma yombal ko. ayca bàyyi kii wax. ba euh, kenn waxul la yow bàyyi kii mu wax. ma waxal loola. waxal.